kilifa dafa ni fii ñu toog donnewuñ ko ci sunuy maam ne dañ koo àbbe ci sunuy set kon ñoom toogaay bi ñu toog du toogaayu ñi leen fi jiitu seen toogaay la yéen kon su fekkee ngeen teel a xam li leen war teel a xam seen mission day dal xel bi ngeen di ñëw di waxtaan ak man ci waajalu bis bi li xewoon France démb xewagul wallahi le maire mhm. bi nu ñëwee di waxtaan ak man ci bureau bi mhm. ak xalaat yi niñ ko tëralee di wax ci wàllu jàmm war a dox ngir jàmm boobu li xew France dem xewagul kon wane na ni ñoom teel nanoo yëg seen mission di dox te dikkagul di woote nit ñi ci li nga xam ne moo am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne kuddoom du ràcc lu dul jàmm kon yéen fas ngeen yéen a doon ku dóom dafa baax nag ñu xam ne li xew France démb di faral di xew Palestine di xew Liban semaine bu jot mu xew Nigéria wala Niger wala Mali wala yeneen dëkk lenn ci loolu jaaduwul lenn ci loolu dëppoowul ak mission wu l'islam ñooñu di tuddoo état islamique xaw ma ku leen yebal xaw ma fu ñu jógee xaw ma lu leen tax a jóg mais li ñu waroon njëkk a bañ jullit yi mooy ñooñu di tudd état islamique ndax taqal ak gàkkal deru islaam boo bëggee xam la xew France ak tey xew Nigéria da nga koy seet rek ñii taxaw lu baax rek tax leen a jóg benn nit mën a romb tiire ci seen kaw ci ñoo xam ne defuñu ko dara xamu ci kenn sax nu mu tudd loolu dëppoowul ak l'islam te da ngeen ko teel a xam di jóg di répandre une culture authentique de paix loolu ñëpp dañ leen ci amal njukkal